alaykum les patriotes nam na len ma ngi len di ziar di len jox seen wàccuwaay. Naby Vision. na gis de vidéo vraiment. mais tay dama ne fo mo def vidéo pour wax ak ben sister sister kura yalla nak daf ñu bindowul nak ay xasté ke wax lu ñaaw lolu mënu ñuko waaye nak bu ñu waree wax rek dinañ wax euh, dama la dégg nga né président Ousmane Sonko dafa daw tayo bok nga si tax mu daw lolu sa xalaatu bop la la ko bañal. ndax sa gis-gis la mais dama la bëgg rek jox exemple yoo xam ne di nga xam ne président Ousmane Sonko du kuy daw ndax ba mu nekkee assemblée nationale en 2017 peuple bi yóbbu ko fa ay jigéen lañ ko daan booleel góor ñu daanuñu ko Sonko waaye ndeysaan laajteel mosul tontu jigéen ndax dafa respecté jigéen te lu ne dégg na ko fa. dem na sax ba bu duggee si salle bi yéen ñëpp ngeen génn te taxul mu teree mu mu bàyyi li muy wax taxul mu taxawal askan bi ba ni mu fay def nag lu fi benn député def. Naby Vision. mooy jël salaire am xaaj ko kon kooku c'est un exemplaire boo xam ne au Sénégal amul contestation ci ñi ñeme dëgg ñaareel bi li mu waxoon sa leader muy président Macky Sall ne ko boo ma songee dinaa ci perdre ay dunq de waaye yow dinga ci ñàkk sa nguur dafa jàkkaarloog moom ba ñu jël réew mi en 2024 kon kooku di kuy daw ko yaabo ñetteel bi même bu fekkee ne li nga wax dëgg la danga koy jël ci ñaar bu jàpp ne dafa ragal xam nga foo koy teg mooy defar respecté jigéen mën na nekk loolu comme na mu ko daan defee say ex say collègue yi nga xam ne ñoo fa nekkoon en 2017 ñu nekkandoo woon à l'Assemblée nationale ba ni bu fay génnee waaye mun na nekk tamit leneen mooy nawloowu la mën na nekk parce que man mii nawloowu ma la parce nit di nga nekk ak moom mu lay saaga di la xas di la wax lu ñaaw nga bañ ko tontu ñu foog ne ragal la wala amul fit déedéet am na ñoo xam ne doo leen tontu ndax doo leen nawloo donc jàppal ne mën na nekk loolu. nabi Vision. xaw ma ko nag sama avis laa wax parce que dama xam kan mooy sama leader dafa fonk jigéen. ma sœur nag ma lay conseiller leen na rafet bu dee deux ans sax bëpp sénégalais jox nañ la ko nga ñuy dégg honorable loo xam ne est pas donné à tout le monde kon tey bu la ko yàlla defalee ba nga jóge fii génne nañ leen palais ñëwaat génne leen assemblée nationale xam ngeen ne loolu ragal lu ko def gat sa gat sa boobu ngay wax ci loolu lañu nekk parce que ba ngeen demee ba war ñu war leen koo won rek dañ leen koo won def ko ci fulaak fayda ngeen rafet demal ci dem bu rafet wax ju bari ji yaru ko wax ju ñaaw ji jaru ko defal ne baara doli ni mu def moom vraiment salué naa ko ndax gis naa ko muy roñ ay bagage am ci njekk ak teraanga defal noonu ma wax ju ñaaw baaxul ñun ñooy jigéen ñoo yar ñoo jur ñoo war a joxe bon exemple te nag euh, président Ousmane Sonko dañ ko yónni yàkkamti ko askan bi moo ko yónni président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu yónni ko yàkkamti ko askan bee ko yónni te nag nañu am majorité à l'Assemblée nationale di nga xam ne Sénégal yéex naa fal ñi te duñu rëcc lu tax ñu fal leen. Naby Vision. li fi am ne yëpp nag ngeen koy politiquer ci bilan yi nga xam ne suñu doom a ngi bëgg dem seen bilan la moom ngeen fi ba amaguñu six mois. siste na rafet di la rek conseiller ne la sa frère boobu président Ousmane Sonko mu sell mi du kuy daw te yow xam nga ne du kuy daw ndax ba mu jàkkaarloog sa leader defe naa ne abal nañu. yalla ñu yalla defal jàmm jaajëf les patriotes. vidéo Coura bi rek doyal na preuve pour nga xam degré mbon ak degré iñan degré bañ Sénégal bi nga xamanteni mom la ancien régime bi nekk woon. Ousmane Sonko bés bu ñu dajé yow na nëb jox la nga wax ci buntu ensemble ba la la yobbu jox la dank nga wax. c'est-à-dire yow lu toll ni assemblée nationale assemblée nationale.

pour liguer réew mi di xalaate def ko député quoi représentant du peuple à l'Assemblée nationale nan le nit mun a xalaate mais après c'est des gens yo xamante ni tamit ils n'ont rien dans leur tête aussi que des ñandax yi ñëw ñëw naan la waaye pourtant liguer nañ fi nangam waaye pourtant def nañ fi nangam. xolal li mom dañ leen ko ñaan rek affaire Benno Bokk Yaakaar ak opposition bi d'une manière générale gis ngeen législature bi ñu génn muy 14e législature législature bi nul ci histoire politique Sénégal assemblée bi nul mooy assemblée bi sëñ Diomaye tas sëñ Diomaye di nga voilà dañu bëgg proposer ñu ay digne de ce nom pas ay askan doon promotion franchement wuñu député quoi à heureusement bi ko

man dama namu ciakir osan ku araw li ku araw ciakir osan dama ka namu gille ngeen tal ku ne fa yomb prisonnier tous tasar tas tasar tous tous nabi vi tas ko ni mu yombe ngeen tok di séran ni dëkk bi ne felaw ñi ñi no appel ñi wa bino tégal sénégal yak sénégal ñi wa bino tégal sénégal ñi tok di séran ni ñin ñin borom ko xoot bu tuuni xoot yi yak na rew ñi tok di séran ni rek ñun waa APR ñun ñoo gën a yées ci Sénégal ñun waa APR ñoo gën a soxor ci Sénégal ñun waa APR ñoo dàq sàcc ci Sénégal ñun waa APR ñoo toroxal jeunes yi ñun waa APR ñoo fi jàppee opposant tëj seen kër yi barricade luñ génn nañ génn taal réew mi ñun waa APR résistance résistance dañ génn xeex il faut yomb PM mooy dirigé wala président son excellence mooy dirigé lii yàlla nañ génn taal réew mi namul nañ namul nañ ay ay lakk yu mosel lakk siyaareeti màggalati bëggati bëggleti soppati wóolooti en tout cas namoon naa leen Naby Vision namoon naa leen xam naa ñenn ci yéen yéeneen namoon ngeen ma am na ñoo xam nag namuñu ma waaye c'est pas méchant mais assemblée dañ koo dusu c'était cool quand même waaw parce que xam nga dàq ay nit ci bërëb bi ñu doon teddee di ca teralee di ci teddeeg seen njaboot nit ñi di ci kontaan kon bërëb boobu lan la doon jariñ sénégalais yi parce que yéen assemblée bii nga xamante ni jëlee nañ leen fi yéen yéen fi woote woon loi troisième mandat ba am ñu ci dee yéen lépp lu Macky Sall bëggoon yéen a ko ko doon yombalal nit ñi jëlee fi Macky Sall ñëw teg fi président jomaay ak président Sonko ñaari doomu penn naar yi lu ñu bëgg ngeen ni da ngeen leen koy bañal te sénégalais yi yéen ngeen ni moom ngeen ko nekkal du dëgg moo tax lii président def c'est beau. Naby Vision. c'est beau léegi nag waxu leen seen doq te yoxusu te wuti leneen.